xaw a jaaxal li tax mu may jaaxal mooy l'Assemblée nationale dafa am ni mu war a doxee te lépp tout a été régi par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale maanaam règlement intérieur bu Assemblée nationale lépp la wax nan la ñu war a doxale bu fekkente ne lii yegsi na nan la ñu war a taxawe lii bu yegsee lan moo war a mën a am règlement intérieur bu Assemblée nationale ñu xool règlement bi rek article yi nga xamante ne cité nañ ko Abdoul Mbow dafa bind bataaxal mu précité l'article 19 du règlement de l'Assemblée nationale mu ne ci article boobu président moom mooy déterminer ni ñuy liggéeyee assemblée nationale d'accord nañu article bi loolu la wax d'accord nañu mais bu ñu demee ci article 73 article bi dafa ne dafa am session ordinaire wala procédure ordinaire dafa am procédure extraordinaire procédure ordinaire bi mooy que ni bu fekkente ne am na proposition de loi bu ñëw ba léegi ci article yaa laa laa nekk de bu fekkee am na proposition de loi bu ñëw dafa am lu muy doxee parce que normalement proposition de loi bi député yi war nañ ko am dix jours avant ñuy dem commission des lois commission des lois balaa ñu koy jàpp war nañu am deux jours pour xool càmbar li nga xamante ne moom mooy loi ba léegi ci ci li nga xamante moom mooy règlement intérieur assemblée nationale léegi est-ce que diggante bi ñu wootee procédure bi ak léegi député yi am nañ dix jours amuñu 10 jours commission de lois amuñu 2 jours pour ceytu loi bi loolu daf daf ñuy firndeel ne am na lu ñëw loolu ñëw nag moom mooy indi problème bi te loolu ñëw moom moo tax ñenn ñi réer ci li ma jàpp mooy boo xoolee article 73 bu assemblée nationale dafa la ne ci procédure d'urgence bi soxna Thialla la dissolution ou la discussion d'urgence peut être demandé sur les affaires soumises aux délivrances de l'assemblée nationale maanaam bu fekkente ne am na urgence boo xamante ne gis nañu ko assemblée nationale député yi ci boppam mën nañu dem ci assemblée ngir soumettre le président de l'assemblée ba ñu entamer procédure d'urgence naka lay demee ba léegi article 73 bindal la nee na ci li nga xamante moom moo xew il faut que député yi ci boppam ñu dem vote te minimum ci député yi nga xamante ñoom ñoo war a il faut ñu am le dixième yoo xamante ni dañuy d'accord pour ñu dem ci li nga xamante moom mooy procédure d'urgence boobu ba léegi lu bi leer na député yi coalition Benno Bokk Yaakaar damay laajte rek de damay xool damay xalaat ndax ñoom est-ce que lire nañu règlement intérieur article 73 boobu parce que bu fekkente ne lire nañu règlement intérieur article 73 boobu procédure d'urgence bu fekkente ne bëgg nañ ko mais nañu dem ñu xool procédure d'urgence boobu et encore une fois l'article 73 ba léegi continuer mu ne la aujourd'hui il faut ñu signaler une, une chose si l'urgence est déclarée l'Assemblée nationale fait immédiatement justement les dates de la réunion de la commission compétente et la date de séance plénière ñu dem nag ci article 84 soxna Thialla parce que article 84 bi moom moo waral lii yëpp li tax ma wax ko mooy l' article 84 de la constitution du règlement intérieur moom moo jox priorité absolue le président de la république mu def li nga xam ne moom mooy ay procédures léegi automatiquement dañuy dugg ci procédure d' urgence léegi bu ñu duggee ci procédure d' ñu entamé mbir yi entamé ko en urgence ci biir article 73 bi ma dellu si waat ci article 73 parce que c'est toujours important ñu ciy ñëwaat ci li nga xamante moom moo xew ci li ni mel euh, ce débat a priori sur l'ordre du jour toutefois lorsque l'urgence a été demandée par les députés le président de la République conserve la priorité conformément aux dispositions de l'article 84 et de la Constitution du Sénégal. Mm-hmm. donc coow li jeex na. le président de la République conserve la priorité conformément à la constitution du Sénégal mais conformément ñu delluwaat encore une fois ci article 84 comme pour dire qu'aujourd'hui mhm. fi bëgg a yóbbu bi débat bi du foofu le président de l'Assemblée mhm. nationale ne peut pas imposer une date pour que mhm. le premier ministre vienne faire la déclaration de politique générale ñu soog a nga xamante ne moom moo indi coow bien sûr que le président de la de, de l'Assemblée nationale est en train de violer li nga xamante moom article parce que article bu la waxee ni. Mhm. aujourd'hui ci lu jëm ci yenn ci ay proposition de loi j'ai lu une proposition boo xamante le professeur Maïssa Babou si je me trompe pas moom moo ko def ci li nga xam moom mooy déclaration de politique générale coow bi mhm. mais on le on le connaît le professeur Maïssa Diakhaté eh, nekk un constitutionnaliste droit ci li nga xamante moom moom la bind

d'accord léegi nag lan moo ci lan moo ci lan moo ci lan moo ci jar. moo ci bëggoon yokk tuuti rek nga baax bu doon bu doon moo nekkoon fii tey. a hmm. la place de Mame euh,